nous avons installé euh, le bureau du réservoir de Dakar. Et vous dire que nous vous accompagnerons. Et nous sommes sûrs et certains que ce sera la réussite. Donc nous vous applaudissons et nous sommes de tout cœur avec vous. Merci. asalaamaaleykum maa ngi tudd madame Mariama Ndiaye euh, président Pékin SALS aujourd'hui coordonnatrice de RESAO donc maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ñu fi teew ci suñu formation bi ñu def ak mbooleem camarade yi fi nekk yëpp syndicat yi fi nekk yëpp maa ngi nuyu ñëpp di wax ni yàlla maa ngi ñaan yàlla ñu yàlla may eh, attan bu ñu yeggalee suñu sago di ñaan yàlla aussi lii ñu fi jële ci xam-xam yàlla nañ ko mën a tasaare ci ñu ñu bokkal ak ñeneen ñuy ñëw di wax aussi suñu bureau bi aussi yàlla nañu bokk ndey bokk baay liggéey ensemble même ñi bokkul ci bureau bi sax ñu ñëw jàppale ñu ci liggéey bi euh, di tàll loxo aussi euh, suñu formatrice yi fi nekk ak ñi ñu jiitu gën ñu xarañ ci métier mi ñu nekk ñu jàppale ñu teg ñu ci yoon wax ñu nan lañuy def pour que Rezao ñu mën ko dégg fu nekk. Mm-hmm. waaw euh, Rezao boo koy xayma day fay nekk R yi mu ngi tudd réseau E bi mooy enseignant S bi syndicat mooy l'Afrique O bi mooy de l'Ouest Euh, mu affilié nag ci union internationale UE de l'éducation mhm. loolu mooy raison di leen ñaaxaat di leen tàggat ci nga xam ne euh, mooy nan la ñuy yoree syndicat ak nan la ñuy communiquer maanaam nan la ñuy waxalantee ci suñu biir ak nan la ñuy joxee ay information ak nan la ñuy tenir ay réunion yoo xam ni dañ koy def ci anam bu mucc a ci anam bu mucc ayib ak nañ la ñuy taxawee ci mbooloo wax mhm. donc objectif yooyu daal lañu xalaat ni ah, ci réseau ci la bokk ci biir réseau aussi euh, ñu ngi koy installé tamit fu nekk maanaam région bu nekk aussi dañ fay def benn cellule cellule bi nag mooy du cellule bi mooy jéeli mais cellule bi mooy nekk antenne boo xam ne day ko ak international pour mun ko tasaare waat nag ci syndicat yi ko bokk yëpp mm-hmm. defe naa ne loolu mooy kii woowu sa mm-hmm. ci biir formation yi nga formation yi ngeen wax yan formation ngeen teg yoo xam te ni fas ngeen fas yéene ngeen ci jàppale jigéen ñi waaw formation yi ñuy jàppale jigéen ñi mooy euh, leadership syndical mm-hmm. maanaam nan la jigéen mun a taxawee laaj baatam war a mën a jiite war a mën a bokk ci post de décision yi parce que dañuy seetlu ni post de décision yu bëri euh, góor ñi ñoo ko yore mais léegi nag buggatuñu nekk ci ginnaaw dañu bëgg a nekk à côté. Mhm. maanaam euh, ñoom daal poste bu ñu yore rek ñun tam war nañ ci bokk moo tax ñuy dolli jigéen di leen ñaaxaat di leen euh, waxaat ni yéen mën ngeen a. mën ngeen a nekk um, ay leader comme ni ko góor gi nekkee ay leader demeloo um, leen tamit il faut que tamit jigéen ñu oser lu mën a bokk aussi ci loo xam ne prise de décision yooyu yëpp la tàggataat leen tamit nan la ñuy yoree xale nan la ñuy euh, bokkee ci xeex violation bi nga xam ne mu ngi nekk ci biir école yi donc loolu aussi dinañ ci tàggat suñu jigéen ñi tàggataat leen ci naka tamit la jigéen di jógee ci poste A dem ci poste B. loolu aussi xalaat nañ ci bu baax a baax a. ci en wolof. donc euh, euh, dama fi ñëwoon tey euh, pour superviser ànd ak sumay jigéen pour ñu installer benn cellule régionale bu Resao Resao nag ak kuréel la. boo xam ne dafa dajale jigéen ñu syndicat yi nga xam ne ñoom ñoo affilié wu si international de l'éducation nga xam ne mooy kuréel gi gën a mag bi dajale jàngalekat yi ak képp koo xam da ngay liggéey si lu jëm école ñu tuddee de soutien boo koy xayma am nekk nañ si euh, euh, fanweeri million euh, doomu aadama nekk si ñeenti téeméer organisation nekk si téeméer ak juróom-ñaar fukk dëkk si àdduna bi kon xam ngeen ne organisation boobu mooy organisation bi gën a mag ñoom nag dañu jàppale lépp loo xam dañ koy def war nañu fexe ba jigéen ñi ñu am si solo ndax loolu moom mooy li nga xam ne tey ñëpp gis nañ ko euh, jigéen lépp lu mu bokk rek mën nañu am yàqin ne day jëm kanam ñu ne kon dañuy organiser suñuy. jàngalekatu jigéen pour que ñoom aussi dañu am seen revendication spécifique yoo xam ne wax dëgg yàlla seen kuréel dong moo ko mën a jël euh, en charge loolu mooy illa ñu leen di tàggat pour ñu mën di xam nu ñuy waxee nu ñu doxalee nu ñuy jëfee di gérer aussi li nga xam ne moom seen mooy seen spécificité waaw loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ leen def euh, ma ànd si nag ak samay euh, nattango Ibrahima ak sama nattango euh, médian vraiment euh, ñu installé ko euh, di delloo jukkal jigéen ñi parce que xam nañ ne jigéen jotam bëriwut ginnaaw mu ngi si liggéey ba su dimanche rek la am ak samedi pour mën a toog ak njaboot yi téye seen borom kër mais gis nga dañ ko bàyyi pour wane solo bi ñu jox lii nga xam ne moom la ñuy def kon nag ñoo ngi leen di gërëm di leen sant te di leen wax ne en tout cas seen i càmmiñ seen i góor duñ leen bàyyi duñ leen seetaan du ngeen wét si liggéey bi. Mm-hmm. lii ngeen mébét da nga xam ne mooy yoonu jàmm mooy yoonu xéewal parce que liggéey mooy li nga xam ne ci la nit di jaamoo yàlla ñun dinañ si ànd ak yéen seen góor lépp lu ngeen soxla incha allah rabi ngeen geesoo di ngeen ñu gis seen wet ñu ànd liggéey pour indi école boo xam ne day nekk école bi nga xam ne moo fi nekkan démb école boo xam ne day ñoŋ tàggat ay doomu aadama ba nga xam ne. dinañ am taxawaay boo xam ne bu subaa kenn du leen dégg si ñaaw téew dinañ xarañ ba nga xam ne dinañ mën a asseoir li ñuy wax développement ndax kat buñ naan émergence day fekk doomu aadama yi xarañ te si loolu la jigéen ñi nekk kon gàcce ngaa laa ma ñoom te dina leen gunge si loolu. waaw man la ak Fatou Sylla tey dama ñëwul fii ci biir CSA makkaanu CSA pour def fii formation. samay moroomu jigéen yi nga xam dañ nekk ci ay syndicat jàngalekat ñu leen di woowee waa Resao dañu ñëwoon tey defal leen formation ci leadership transformationnel defal leen formation ci communication syndicale defal leen ci prise de parole ak lépp loo xam ne rek renforcement de capacité boo xam ne lépp rek mën na leen jëmale kanam Mm-hmm. loolu tey moo doon suñu taxawaay fii ci biir CSA. Mm-hmm. Euh, ñu gis ni que euh, actuellement yéen yéen a ngi taxawal benn réseau boo xam ne jigéen enseignante yi la euh, mais également ñu nekk ci société boo xamante ne ni jigéen mën na mën na am compétence yu nekk mais dafay manquer de courage pour exprimer ko wala def li nga xamante ne moom la bëgg parce que société bi moom moo moo tëddee noonu par rapport ak jigéen yow yan taxawaay nga ci fas yéene am par rapport ak enseignante yi nga doon former. waaw boo gisee formation bi dañ ko def ci juróom benni syndicat d'enseignants juróom yi fi teew parce que dafa am lu ñu bokk mhm. muy li ñuy wax international de l'éducation comme nag xam nañ dëkk bi jigéen comme ni nga ko waxee pour ñu accéder poste de responsabilité yi dafa jafe loolu tax na tey ñu ñëw di leen renforcer seen ay capacité di leen yokk ndëgërlaay di leen wan yan yoon la ñu mën a jaar yoo xam ni dinañ mën a bokk ci ñay dogali ndax kat na tableewuñu xëy na jigéen ñoo ëpp parfois surtout su fekkee jàngalekat yu jigéen ñi la nekk ci école yu ndaw yi ñoo ciy ëpp mais boo seetlee ñoom ñu si ëpp du ñu jël ci poste ya nga xam ni foofu lañ leen war a fekk ba tax na tey lël bi ñu defoon c'était pour partager ak ñoom yokk leen dëgër laay renforcer leen ndax xam ngeen li xew ci école yi mm-hmm. violence yaa ngi ci ñàkk jàng ñàkk niveau élèves yaa ngi si yooyu yëpp day tax ñu renforcer leen ñu mën a dem parce que nag nit ki nga xam ne boo demee di jàngale ci classe bu fekkee amoo ndëgër laay amoo assise amoo compétence yi nga xam ne ñoo la war a jàppale pour nga mën a jàngale bu baax doo mën a dem donc lël bii ñu def loolu rek la woon te lël bii benn pàcc dong la tey ñu ngi ko defee Dakar daaw defoon nañ ko si ñeenti région defoon nañ ko Diourbel defoon nañ ko Thiès defoon nañ ko Kaolack def nañ ko Fatick ñi ngi ko def si juróomi région def nañ ko ndax def nañ ko fii ci Dakar fi ñu nekk tey def nañ ko maatam def nañ ko Louga mais tam def nañ ko Kaffrine donc lii tey dañ ko boole boo ko defee day nekk juróom-ñeenti région yoo xam ni ñun euh, waa Resao ñëw nañu former jigéen ñi nga xam ne ñooy jàngale ndax ñu gën a ëpp njëgan laay mais bi ñu paree ci loolu dañu installé ay antenne régionale donc fii tey tamit installé nañu antenne bi bokk na loolu yëpp day renforcer seen ay capacité loolu yëpp day tax ñu gën a am fit gën a dooleel pour mën a ëllëg taxaw fa ñu war a taxaw